diffamation rek la ñu wax benn simple procès de diffamation est-ce que jar na tey ñu wax a xëy suba ñu ne xale yi. dañu non non mais loolu tax taxul aussi tamit nag monsieur Tine xam nga ne loolu taxul li tax xam nga li tax li jël dogal bi mu jël. gis nga exécution d'une décision de mhm. mhm. a créer ay bi. Mhm. depuis avant na. l'exécution décision de justice waxuma nag un simple procès xam nga. li ngeen di tudd nii naan procès kese diffamation procès diffamation bi du problème bi. luy problème bi. problème bi mooy suñu dispositif légal bi ñu am ci biir réew mi. Mhm. moo jaaduwul xam nga man Moussa Tine mhm. wala keneen ak keneen wala même Ousmane ko ci boppam tey. nga xam ne mhm. moom la ñuy jiiñ sa dafa def diffamation. bu dul woon dispositif bu làqatu ci ginnaaw procès bi xëy na moom sax boo ko woowee procès xëy na du dem. diffamation lan la da ngaa juum dangaa wax ci benn nit ñu ne waaw li nga ko wax kat amul ñu ne kaay prouver ñu ne prouver ñu condamné na la ah yow kat yaa tooñ yaa tooñ diw xam nga loolu du even mais bu demee woon noonu kon yomb na kon mu yomb waaw mais mais ba léegi nii lan moo tax comme ni nga ko waxee ni ki nga xam ne moom ñu tuuma li ci li ci ne waaw mooy dañoo làq dara ci biir suñu code électoral muy lan ñu ne ko kii kat bu ñu ko condamné suba mhm. xam nga condamnation kese ñu ne ko dootoo nekk candidat élection présidentielle ah loolu mooy avec ce kii de ah. diffamation Ousmane Sonko mën na ci loolu moom la ñuy làq ci ginnaaw texte bi nekkul kese affaire de diffamation ak loolu lu bu doon loolu kese lii xew ci biir réew mi yëpp du ci mais li ci làqatu mën nga ñu ko làqati waaw mooy li dal Karim Wade mooy li dal xalifa Sall xam nga tey nit mënoo xëy suba teel nga gis fi fu ñu jaaroon Khalifa Sall mm-hmm. euh, xañ ko mu nekk candidat gis fa ñu jaaroon Karim Wade xañ ko bu nekk candidat ñu xëy suba teel ñu ne yow tam dañ la fay jaarale te buñ la fa jaaxalee xam nga ne doo nekk candidat loolu mooy xeex bu mag bi nekk ci ginnaaw c' est ça le problème. c' est pas kese nit waru ci affaire léegi dama lay jox benn six mois lay doon ak amende kese loolu. waaw waaye fekk na ne si biir code électoral ba ñu defaat beneen disposition ne la buñ la condamné six mois avec succès amatoo a nekk candidat élection présidentielle loolu mooy coow li. d' moo tax li ñuy gis ni di yëngatu de affaire euh, diw ak diw moo moo moo fa nekk. Euh, euh, euh, ñii boo leen seetloo ñoom si seen bopp moom si sax nee na man rapport bi am na kee nee na rapport am na rapport wax nañu assemblée nationale ñu xëy suba teel ñu ne ah rapport boobu kat amatul nee la demoon kaay wuyu ci biir diffamation du diffamation mooy am ci coow xam nga li jaaduwul mooy mhm. yow nga xam ma xàmmee sama oto mhm. xam nga ma xàmmee nga sama oto mhm. nga xëy suba teel gis sama oto vingt-et-une mu dugg fenn nga xëy suba teel na Moussa Tine kat gis naa oto muy dugg fenn. Mhm. gis naa ko ci benn boîte gis naa ko ci benn lële gis naa ko ci euh, ci ci weeru koor gi. Mhm. lu dëgg. la ma xëy suba teel. Mhm. nen la man yow li tax naa gisoon nga ma fay tamit ma fi ma génnal sama passeport ne la man kat waxtu bi nga fii ne. bi ngay wax noonu man maa ngi woon euh, euh, Abidjan wala maa ngi woon Gambie génn sama passeport xam nga donc yow daanu nga. waaye yow sama xayit man laa abal sama oto yow gis nga sama oto foofu sama xayit gis nga maa moom ñoo nuroo donc. yow tu t'es trompé de bonne foi. d'accord dëgg la léegi nga yóbbu ma tribunal non seulement pour cette affaire là. Mhm. non seulement man condamné nañ ma waaye affaire boobu tax na man mii yow mii nee nañ mënatoo nekk candidat élection présidentielle est-ce que loolu jaadu na. Mhm. c'est ça le problème c'est pas le fait de de information bu jóge fii ak information. mais donc c'est le dispositif légal bu ñu bëgg a làq ci ginnaaw. moo indi tension politique yi am ci biir Sénégal moo tax Macky Sall ku ko bëgg a sonal mu toll le moyen bu mu la yóbbu tribunal à sachant que boo amee condamnation ñu ñëw daaneel la yóbbu la fa. c'est ça en fait le le grand problème. mais mën nañ normalement condamnation bu fekkee ne ki nga xam ne moo tuumal yor na ay firnde yu wóor ci li nga xam te ni tuumal na ko. non non c'est-à-dire xam nga loolu. beneen débat wu justice la. xam nga loolu justice bi la. ban mhm. waxaguma yegguma foofu. gis nga dispositif bi nekk ci biir code bi ba ñuy wax noonu. Mhm. bañ ko yóbboo France. amoon na France juge français bi def na dispositif bii dafa contraire à notre constitution ñu ne ko lu tax mu ne parce que da ngay teg ni daan goo xamante ne mhm. code bi euh, euh, juge bi prononcé wu ko alors que ñun si suñu biir constitution nit mënoo ko teg daan boo xamante ne jógewul si ab procès juste et équitable et donc benn juge prononcé la loolu pert droit civique e politique condamnation pénale la mhm. fii nekk nekkul condamnation pénale condamnation automatique la mhm. loolu moo jaaduwul soo déggee coow lii léeg bu yëngu bee kii di wax aw nii kii di wax ni aw nii du affaire u lool loolu du enjeu ci euh, euh, euh, ci loolu man poursuivre nañ ma diffamation plusieurs fois man vous mhm. am na fi. Mhm. ma dem ñu ñu donc loolu du du du ndax lii rapport am na lii rapport amul lii am na ñi kii compte sax ne rapport bi am na moom wax na ne rapport bi am na ministre ba nga xam ne euh, euh, structure bi doon def rapport bi si moom dépend taxaw na assemblée nationale mu ne rapport bi am na donc loolu nekkul du loolu mooy coow li rapport am na rapport amul loolu débat contradictoire au niveau de la justice na ko réglé mm-hmm. mais lang nga ca bëgg a def ci ginnaaw ba tax état bi yëpp. mais lépp fa la tàmbalee nag rapport am na wala amul da nga koy xeebal tal waaye fa la lépp tàmbalee. non c' est pas le problème. loolu ah mais mais lu at lu waral coow li. non c' pas le problème. lu waral Mame Mbaye Niang euh, porté plainte Ousmane Sonko. oui euh, lu rapport la. oui d' accord lan la loolu taxul bu fekkante ne woon loolu kese la. diffamation rapport am na amul. non bu fekkante ne xam nga loolu. ñun ñu nekk champ politique. Mhm. chaque jour nit wax dara nit. du tey chaque jour ñu jàpp nit yóbbu ko tribunal. boo ko yóbbuwoon tribunal lan la bu dee lan la dañ koy libéré donc yow mi ko yóbbuwoon tribunal yow kon bu dee loolu diffamé nga ko. jiiñante am na ci biir kii nit am benn affaire jàpp ne li la loolu c'est pas ça le le la le véritable problème du affaire ndax euh, euh, ndax loolu parce que bu dee loolu la benn simple communiqué bu ministre boobu génn ne a ah, man koy wax nañ ma lii mais je voudrais tenir à rétablir les faits euh, il n'y a jamais eu de rapport définitif sur telle autre chose, je prends l'opinion à terme, etc. su dee affaire honneur rek parce que diffamation loolu la. le problème il est réglé. donc l'objectif c'est pas simplement de dire ah kii ñëwal rapport am na amul non c'est pas ça c'est l'empêcher mu nekk élec mu dem candidat à une élection présidentielle c'est en fait ça l'enjeu majeur qu'il y a d'accord d'accord alors donte ne ñu ngi jot ay xibaar fii tey ak Mame Mbaye Niang par rapport ak rapport euh, nan nga jàpp ne noonu la Ousmane Sonko war a def ba rëcc ci lii nga xam te ne ni moom nga ne moom lañ ko yootal mu di fexe ba du nekk léegi c'est pas mon mon ça loolu dem tribunal dem li nga xam ne moom la ñu war a def en tant que politique ñu nekk allié ak moom nekk xarit ak moom nekk am di jàmm ak moom mooy bu bu ñu dem tribunal buy dem nañu ànd ak moom bu fa toogee dañ fa toogandoo ak moom et on verra effectivement aussi à ce que ces droits soient préservés loolu mooy su rôle ñun en tant que politique maintenant la bataille judiciaire moom ci boppam du ko génne pourquoi parce que simplement il va à un procès il a une stratégie ses avocats ont une stratégie euh, euh, xam naa ne du doon procès bu yomb procès bu yàgg lay doon procès bu diis lay doon diggante ay exception boo dem jugement au fond bu lu nekk lépp am na ci biir euh, ci biir maintenant nag li nga xam ne moom lañ ngay ñaan et moom la ñu war a veiller mooy véritablement mu am droit à un procès équi équi équitable am li ngay seetaan si biir tribunal bi tribunal bi nu mu évoluer nu mu hmm. changé membre euh, euh, tribunal bi conseil supérieur de la magistrature intervenir ci diggante bi lu ne am na ci biir euh, procès bi hmm. xëy na loolu au moment ko war a wax ay avocat ak ñi ma àndal dinañ ko génne ko dinañ ko expliquer ay nañ Ousmane Sonko yokk na ñaari avocat kenn ki tubaab la Juan Branco dëkk ca France ñara njëw alors loolu aussi ñu bëri ku nekk yaa ngi ce àddu Ousmane Sonko ni nga xam te nii noonu la amoon ci côté tubaab yi gis-gisam ak taxawaayam dem bay fair appel à des avocats blancs loolu aussi yow mi nga xam te nii bokk nga ci coalition bu mu bokk nan nga ko jàngatee. non non non ça y a, a c'est des choses souvent yoo xamante ne du benn du affaire wu euh, lële yaa ngi une politique bu ñu am diggante ñun ak tubaab yi boo xamante ne ñu bëri ci ñun tout toute la nouvelle jeunesse d'ailleurs bu nekk fi génération yu bees yëpp. ñu nekk fii si suñu pays africain yi ñu bëri dañuy contester aujourd'hui rapport boobu ñu am ak ak euh, l'ancienne métropole mhm. ça n'a rien à voir maintenant ak la ressource bi ngay dem di wuti feneen xam nga tey bu dee loolu kese di nga jël garab bu jóge Tunisie di nga jóge garab bu jóge France bu jóge Angleterre bu jóge feneen donc la nga xam ne moo fay ressource nekk ay ngëneel ay baax baax yu jóge ci beneen réew mhm. wala ay ressources yu jóge ci beneen moo xam ay ressources humaines la moo xam ay ressources euh, fajukaay wala ressources leneen nga mun ko utiliser pour sa dépense ça n'a rien à voir